man maa ngi tudd Bastian dëkk Gibraltar donc euh, voilà dem nañ voté ji di ñaan lépp Sénégal yëpp am jàmm ñu nekk ci jàmm ba daal heure bi jot su heure bi jotee nag ko ci gagné ñoo xam ni moom la yàlla tànn mu jeex te suñu candidat woolu nañ ko daal. organisation élection yi man depuis 98 voté wu ma fii voté wu ma Sénégal mais xam naa ne organisation bien que euh, xaw na doy waar mais yéex na dafa yéex rek. mais tout se passe bien donc euh, ici au niveau de la Médina man de dégguma fenn ni am na benn problème bureau de vote wala dara les gens votent et voilà c'est l'essentiel quoi parce que xam ne aussi après tout au-delà de tout ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk ku gañe Sénégal moo gagné quoi suñu candidat moom démb bërki démb ak tay yëpp c'est la même chose waaw ñun daal xam nañ ne daal yor nañ mbër daal bu baax a baax bu soobee yàlla daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax te ñu ngi remercier waa Médina yëpp ñëpp quoi donc euh, di masawu ñi gaañu si événement yi donc euh, voilà daal. su ni moom lu ma leen di wax rek mooy que nii nañu xam ne rek li li élection la rek day jàll quoi après liy jaar après élection moo ëpp quoi donc euh, te def attention rek ba politicien di leen dugal si yenn yi jaru ko. donc loolu daal mooy sama message que ni jàmm rek la ñuy wut jàmm rek ku nekk nag am nga foo féetee am nga foo far mais soo ñàkkee rek xamal ni ñàkk nga waaw la la àdduna doxee daal. ñu ngi nuyu population bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu vraiment di rafetlu aussi teewaay bi fii bi ngeen ñëw xam naa pour rek def ay ITV di dugg ci askan wi donc ñu ngi rafetlu liggéey boobu quoi di nuyu ñu ñëpp macha allah. début mun naa may ay ay ay mais bu ñu demee ba ci biir bu compréhension amee xam ne ñun ñoo bokk quartier bi on est des frères ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xam ne ñaari leader yëpp ku ci nekk wootewul violence surtout suñu leader sunu leader muy Bamba Fall tey boo déggee tey ay euh, message bi mu lancé bi mu lancé il a il a lancé un message très fort que ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañu respecté li nga xam ne bu ngoonee mooy urne yi. parce que tey jii ak lu coow li bari euh, euh, lu coow li bari bari ngoon la il a compris donc mu waxee ne daal foofu la waxee que nañ xam ne ñoo bokk lépp et puis que le meilleur gagne sax bañ a campagne Bamba bu tëddoon di nelaw ak li waa Medina gis ak li mu réalisé sa maanaam campagne ko xaju ci je pense que ne tey Medina gis nañ loolu xam nañ loolu te bu ngoonee ñu xam ne li mu liggéey nit ki du wax maanaam jëf wax kese mënul mënul suul jëf. Bamba dafa jëfan ah, fi ñu toogee nii ñu toog nii rek c'est un plaisir dafa bokk ci ay réalisation am ak feneen ak feneen yu bëri euh, inauguré ko donc ku mel noonu te man li ma gën a neex sax dafa am ay candidats yoo xam ne koo xam naa la noo boole na fale dinaa mel ni Bamba Fall Médina donc c'est-à-dire dafa liggéey moo tax te fii Sénégal nit ñi kenn dofatul ku liggéey xam nañu ku fi ne di wax it xam nañu. fi ñu toog nii première ouverture campagne bi Cheikh Ba fii la campagne kër Bamba Fall nekk fii kon ñoom ñoo commencé violence bi pour dire vrai. man mosuma gis sa sa ouverture campagne ngay dem di di def sa meeting sa sa buntu kër adversaire loolu moom tooñ la xam nga ba tax ay échauffourées am fii mais mënoon na dem meeting feneen mais pour pourquoi li pour quoi mu ñëw meeting buntu kër euh, maire donc problème moom ñoom moo ko indi. mais dem naa ba ci biir xam nga déjà déclenché na ko xale yi dem di xeex noonu kenn rafetlu ko mais je pense que ne tey li vote bi demee nii alhamdulilah rabi alam parce que bureau de vote yëpp fees na mais ba tey gën déggu fi incident te incha allah noonu lay demee parce que euh, boo gisee campagne bokkul ak bureau de vote parce que euh, euh, vote bi da ngeen di daje nii ku ne di xool sa morom ngeen xamante. foofu nit euh, nit ki euh, amul droit pour dépasser kenn da ngay mën a vote rek daal di dem sa yoon donc loolu la population bi def tey. waaw li may lancer rek mooy li sama leader wax rek muy Bamba Fall vraiment dafa laajte tey que ñëpp dal que ku si nekk nanga nga respecter euh, sa morom ñu voté ko si dal 18 heures résultat yi génn mais incha allah ñu ngi am yaakaar ne daal bu résultat yi génnee dinañ xam ne ku kuy wax ak kuy liggéey du benn incha allahu rabbi